iblis delu ginaaw ci xolam bu tang bayyi ba njabotam gep dajalo ci all bi domam yep dem dugg ci ben tabax mu ak ñom fexé ba duggal leen ci ben bâtiment hmm. bañ fu duggé mu mabbu bâtiment ba ci sen kaw ñep dee ci sas dom yi ñep mu ray leen delu ci wat niko gor gi jógal gor gi jógal yaangi tok fi di wax sa wax yi rek waye sa dom yi ñep nañ ba jeex niko ay bo gi son diw iblis ay wax de hmm. niko ay bo gi son diw sa dom ji mi ngi teud maa ngi gis dënd baa ngi tijjeeku deret jaa ngay xelli te du ayuba bu doomam boobu daf ko bëggoon mhm. particulièrement daf ko mhm. bëggoon mhm. attaché wu ci moom iblis di ko wax loo xam dafa bëgg xol bi déchiré wu iblis dik ni ko góor gi ba ay diw boo ko gisoon mi ngi tëdd dënn baa ngi tijjeeku deret yaa ngay xelli sa gémmiñ nga mi ngi naan papa dimbali ma papa dimbali ma papa dimbali ma loolu lay wax ba dog oh moom ayuba mu nekkoon ku mënoon loolu yàlla mayoon ko alal ju bare mu nekkoon ku am ay soxna yu bare am na ñu wax ne téeméeri soxna amoon na ko waaye amoon na daal soxna yu bare am ca ay doom am ca njaboot gu bare bare bare am alal ju bare bare bare yor ay jur yu dul jeex ay nag ki xar ki bëy kenn xamul mu mm-hmm. ayuba waaye moom foo ko fekk dafa mel ne alal ji yitteelu ko mi ngi toog ci mbaaram ma rek subhanallahi walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar du noppalu nag du noppalu ci loolu tudd yàlla rek tudd yàlla rek ba malaaka yi yéemu malaaka yi ne waaw ayuba daal moom jaaxal nañu moom foo ko fekk vingt quatre heures sur vingt quatre mi ngi tudd yàlla yàlla na yàlla sàmm ayuba yàlla na yàlla watt ayuba ñu malaaka yi di ko ñaanal iblis xool loolu xol ba ñox ñoxi dagg mu dem ni yàlla man des ayuba mii ngay wax ñu koy bàkkoo boo ma seetaanoo nag moom léegi ma wàcce ko raay yàlla ni ko demal jib iblis ñëw ñëw bàyyi ba jur gi yëpp nekk ci àll bi mu ñàkk leen taal leen lépp tàkk ba jeex xar yaag bëy yaag nag yaag lépp lakk ci àll bi ba jeex tàkk tàkk tàkk iblis nekk génn góor gu màggat daw si dikk fekk ayuba fi mu toog Munuku ni ko gi jugal jugal jugal adina ngay tukki mu ko lan la mu ni ko sa jurga lépp dee ba jeex tak tak dara desatu ca amato dërëm fi nga tok ni jeexal nga tak dara hmm. ayuba ni ah waaw lol de alal jooju de yalla momako joxon kon moko ko wat awma ci ben droit man lol sama yónneeku ci continuer subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar eske iblis delu ginaaw ci xolam bu tang bàyyi ba njabotam gep dajalo ci all bi domam yep dem dugg ci ben tabax mu ak ñom fexé ba duggal leen ci ben bâtiment hmm. bañ fu duggé mu mabbu bâtiment ba ci sen kaw ñëpp dé ci sas dom yi ñëpp mu ray leen dellu ci wat ni ko góor gi jógal jóor gi yaangi tok fi di wax sa wax yi rek waye sa dom yi dé nañ ba jeex ni ko ay diw iblis ay wax dé hmm. ni ko ay boo gisoon diw sa dom ji mi ngi teud ma ngi gis dënd ba ngi deret ja ngay xelli te ayuba bu domam bobu daf ko beggon mhm. particulièrement daf ko mhm. beggon mhm. attaché wu ci mom iblis di wax lo xam dafa bëgg xol bi déchiré wu iblis dik ni ko góor gi ay diw boko gisone mi ngi teud deun ba nga tijjeku deret ja ngay xelli ci gemiñ nga mi ngi nan papa dimbali papa dimbali papa dimbali ma lay wax ba dok oh <laughs> ci yalla idris su astafurla ayuba am benn pincement ci xol bi. nit nit rek la. nit la xel mi ne waat tukk. ci yàlla ci yàlla. mu ne ko ah góor gi yow de li nga wax baax na waaye man de doom yooyu sàkkuma leen sosuma leen moomuma leen de yàlla mi ma bind moo leen bind moo ma leen joxoon bu ko neexee mu jëlaat leen. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un continué sàbbaalam subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaaha illallah. wallahu akbar subhanallahi iblis ni waat poy met dem. dem tourner tourner tourner wour wour wour xam lu muy def mu dem ba ci benn dëkk fekk fa benn épidémie bu fa am mhm. benn feebar bu mel ni feebaru peste la mhm. mu dem jël virus bi ci benn bant la ko teg virus bi mhm. ibis. ñëw fekk ayuba fi mu toog mu teg ko ci buntu bakkan yi ëf ko ëf mu ne bax ci bakkan yi dugg virus bi dugg ayuba seet tet tet góor gi commencé tawat di yëg feebar bu yëg feebar bu mujj gi yaram wi yàqu léegi góor gi yoratul ñaar fukk yoratul benn doom bu koy dimbali yoratul benn bëy bu mu mën a jaay wala bu mën a ratt meewam naan ko ba pare doomam yëpp dee nañ ba jeex tàkk yoratul dërëm léegi nag feebar na moom ci boppam faf boole ci mënatul dara yaram yëpp def ay góom di yàqu di pourrir ci biir ay à l'extérieur mu sax ci rek subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allah wallahu akbar Subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar soxna mi mu amone bu toge mom yag rek ken dik ni ko ah góor gi man dal dama bëggon nga ñaanal ma ta gis naa fi nek ni mom nangam nangam nangam xoo jege mu bayiko ko keneen dikk ah góor gi man dal dama bëgg deug deug nga dimbali ma ndax nak nanga nangam nangam munuma munuma yor ab malat hmm. nga lef rek gis dik jigen munuma sik malat koku dem mu nek ak jarak ndaysan hmm. ba mu ba mu jeex tak bi mu demee ba mu jeex tàkk ndeysaan ba soxnaam yëpp dem. Mhm. ah mu daldi des benn soxna. Mhm. soxnaam bi ñuy wax layyaa. layyaa layyaa la tudd soxnaam boobu. soxnaam boobu am lu ñuy wax ne layyaa bintu ayub bintu yanquub. Mhm. layyaa bintu yanquub. yanquub la wax ni moo ko jur. mooy yanquub yonent yàlla yanquub moom moo jur layyaa boobu. am ñu euh, Bintu Mansa Ibnu Yanqub. Mhm. dañ wax noonu lu tudd Layya Bintu Mansa Ibnu Yanqub. sëtub Yanqub sëtub Yanqub la. Mhm. am ñu ne déedéet am na góor gu wax Rahma la tuddoon. Mhm. Rahma Bintu Afratim. dañ wax ni Rahma Bintu Afratim la tuddoon aussi. comme toujours dans l'histoire il y a des divergences. et voilà comme ni ko waxee. waaw waaw ñu ne Rahma la Bintu Afratim. motax tay yi yii nga dik ni ndaw si Layya la tudd bu suba am ko commencé non non Rahma la tudd. bu ko defee loolu mooy enrichir mooy neexal. tout à fait voilà waaye soxna si nekkoon ku baax. Mm-hmm. lool layyaa. moom yaa boobu. layyaa moomu nag moo sax ak moom nekk ñu jëm ba mujj yoratuñu dara dara dara léegi soxna si mooy débouré lu ñu lekk. est que bu xëyee day dem ci dëkk yi commencé di liggéey mbindaan mu dem di liggéeyu mbindaan ñu jël ko ci ay kër muy liggéey ñu koy fay muy ñëw di dundale ayub. ba mujj gi Iblis gis ko dem ca dëkk ba ñi leen yéen kii ngeen fi jël muy liggéey mbindaam jëkkër ji dafa am feebar bu bon bu nekk ci moom bu ngeen dof dof dana leen ko wàll Iblis bi moom bon te iñaan ñu dàq ko est ñu ne ko bu fi ñëw ci daf demal waa dëkk ba yëpp dàq ko léegi kenn nangootu koo jël génn kër nangootu koo jël ko mu liggéey muy yalwaan bu duggee ci dëkk bi di yalwaan waa Iblis dikk ni waa dëkk bi kii dikk seen dëkk bi di yalwaan dana leen indil feebar bu bon ndax jëkkër ji feebar bu bon da koo topp waa dëkk bi ni ko bu fi duggati bu fi dugg bu duggati ci dëkk bi. est-ce que. boobu Ayuba dem na ba buy déplacé wu day direeku day watatu soxna si buy dem da koy bàyyi fenn léeg-léeg bu ñëwee du ko fa fekk day fekk watat yi lay topp rek gis ni dafay watatu mhm. watat yi lay topp ba gis ko fekk ko fu mu nekk indil ko lekk indil ko ndox jox ko toppatoo ko defar defar ba mu def li këpp te lay kàttanam tegaat wéeraat ko foofu ñaar ñu yàlla boole alaaji kenn ki mën kenn ki mën a tudd wallaahi ki mën rek moo mën a jàppal ki mën ngi noonu wallaahi mu dem mhm. bis boobu nag soxna si retourné ñëw xaw a yàgg lool ayub mer ndax soxna si bii yoon bi mu demee dafa yàgg hmm. ndax dafa dem fa mu daan ñu dàq ko fa mu daan liggéey bu hmm. dem fa muy yalwaane ñu dàq ko muy wëndeel lu lu mu lekk ndeysaan xaw faa yàgg hmm. ayub ni waaw kii lan moo tax ñëwul boobu ba léegi bu ñëwee dinaa ko dóor téeméeri yar est-ce comme daf ma tàddeel boobu ba léegi ci noonu tuuti la Jibril dikk daal di bënn benn teen ni Ayuba demal nga naan ci teen bi moom nga gis ndeysaan parce que nag booba nag Ayuba jaaxle na nag mm-hmm. bi mu demee ba sonn nag ci la soog a ñaan yàlla nag wax ko nag feebaram xam nga xam nga. mais El Hadj feebar bi ñaata at la def ci ban durée la def ci moom. feebar bi bari trois ans ñii ne leen sept ans. ma ne leen dix huit ans. ma ngoog ñii ne effectivement yooyu. ay polémique la. moo tax kenn mënu la wax exactement ni la feebar bi tant d'année la durée wala tant de jours. feebar na diir bu yàgg rek. parce que histoire moom toujours loolu moo ci nekk. lépp dañ ciy waroo. amul lenn loo xam ni dañ ciy d'accord ci ci benn mbir. et puis je pense que loolu mooy def charme l'histoire. parfois da may gis yenn nit yi dikk ni ma non lii nii la nii nii nii damay kontaan. parce mm-hmm. que donc c'est important parce que au moins le fait que bu amee ñii naan la non non demeewul noonu nii la demee rek. Mhm. ça veut dire que les ñii ñi ngi ciy intéressé donc loolu moo mën a cultiver ci ñoom. c'est bien ñu mën a am euh, bëgg histoire. c'est bien Ayuba nag bi mu feebaree non ba jaxlé si la sogo ñaan ba yobam boromam. quelle que soit la durée quelle que soit la durée dal yalla teg na ko muñ na natou ba mais lu natou yag yag nga muñ ko xana yalla dina la ko teggil moom Ayuba naka la mujjee jàngoro ji bi mu feebaree ba sonu nonu dafa ñaan yalla mom la la yàlla wax ni wa ayuban is na daa rabbuhu ana anni masani dur wa anta arhamu rahimin ay yalla mu ñaan mo mo borom ñaan ko niko man de lor mbas dal na ma man de febar dal na ma man yalla te yow de yaay bur bi nga xam yaay ki am yirmande yaay ki meuna dimbele dimbalee est mu ne fa lahu ñu dal di nangul ñaanam nga fakasaf nama maa bihi min durrin yu teggil ko febar ba nga xam ne mo nekkoon ci kawam ci la ko Jibril ñëwee bënnale ko teen boobu ni ko ayub demal nga naan ci teen bi nga sangu ci ayuba ñëw sangu yaram wi wér mu naan li woon ci biir yaram wi ci feebar bi wér mu beesaat tax rafet lool mel na mu meloon soxna si ndeysaan di wër dellu siwaat di wër ayuba ñëw fi mu ko tegoon fekk ko fa waaye li ko jaaxal bii yoon gisul ay watat watat ni mu daan ni mu daan ñëwee ah, si da daan watatu sax yi di wadd ma wadd waaw ah, der yi wadd ak yooyu voilà bi yoon nag watat bàyyi ay trace ci yoon bi bàyyi tras parce que mm-hmm. moom lay topp rek ba xam ne mi ngi fee mm-hmm. mu toog mu toog xool gisu ko mu wër foofu yëpp xool xool gisul ko mu jaaxle lool seen benn waay bu taxaw na le naan ko eh layyaa naan ko eh layyaa layyaa xool ko dikk ba ci moom ni ko sëñ bi nuyoog moom te ayub la mhm. ni ko man de dama bàyyi woon sama borom kër fii dafa tawat ndax gisoo ko ayub ni ko man la la yaa ni ko ah sama borom kër de ba muy ba muy wér dàqoo ko woon de gënoo ko woon a rafet de gënoo ko woon a góor de <laughs> parce que moom pour moom kii da koy saboote wallaay ndeysaan ayub ni ko la man la mhm. yàlla moom mu faj moom mu wéral mu soog a reconnaître ni ayuba la mhm. ndeysaan ñu ànd ñoom ñaar ñëw dem toog mu ne ko nag ah man dey dama waatoon ni danaa la duma ndax tardé bi nga tardé ndax yàgg bi nga yàgg mu jël yàlla ni ko léegi da ngay boole téeméeri bant bale mhm. nga takk ko wenn say nga bàcc ko caw cawal ko tuuti caw cawal non nga koy bàcc benn yoon rek ah. nekk ne téeméeri yar dal la ko ah. bu boole téeméeri bant bale mhm. takk ko mu nekk benn bale ma bàcc la ko benn yoon dóor naa téeméeri yar mhm. tout simplement noonu la mujj def moom ayuba bim defé lolou nak ba nopi nak yàlla ci wat ko alalam ci wat ko ay soxna. mayaat ko ay dom yu bare lamu mu lépp mu delu amar ci non la dund mom yonte yàlla ayuba ba dundam jeex mu xëy génn addu ñata at la dundu donc ayub xawma jàpp ma exactement. ñata at ñaata at la dund. waaye macha allah yàlla may na fanu gudd. dunduna lu lu lu am solo dal ci dundam ci existence am. donc kooku mooy yoon ci yàlla ayuba yàlla daal jàngoro ju mu sàkk rek am na. tout à fait jàngoro bu yàlla indi rek utal na ko. saafara saafara. saafara ba nag euh, parce que teen boobu ndox moomu. la ca yàlla def barke la. la ca yàlla def ay antibiotique la. Mm. la ci yàlla def ay anti inflammatoire la. la ci yàlla def nest ay ay ay mbir la yoo xamante ni si ferñeent la yoo xamante ni si mën na traité feebar bu mu mën a doon. Hmm. waaye barkeb yàlla kàddug yàlla moo ci ànd. mu faj moo tax léeg-léeg dañuy wax ne ndox boobu ba léegi dafay kon ne di faj. Hmm. ba léegi ma nga fa teen bi xam naa peut-être nit ñi bu jógee dañ vérifier ba xam. Hmm. aynul ayub boobu mi ngi mi ngi exister réellement. am yoo xam ne teen ba sëkk na bu yàgg fa mu nekkoon mbalit lañ fay tuur. mbalit lañ fa doon tuur mbalit. fa mu nekkoon am yoo xam lañ fa doon tuur

baax teel lañ ay nit yu yàlla baaxal lañ ginnaaw moom nag waaye lu ko jiitu yonent yàlla Yuusuf ci la ñëw ci la ñuy ñëw xam naa ni kon bu fekkee ni temps bi des na dañ koy junj tuuti rek ñu dugg tuuti ci Yuusuf ubbee bu ko defee incha allahu. ah de damay teg foofu sa loxo. Hmm. dangay teg foofu sa parce que le temps était mënuñu woon évoquer keroog euh, Serigne Abdoul Aziz. ndax liñ ci waroon a ba pare dugg ci Youssouf motax mo andi indi loolu la Ayub. Mhm. Youssouf dañ koy jël intégralement. hein waaw alaaji wax sa téléspectateur yeeg auditeur yeeg internaute ci lay seetaan. barakallahu di leen remercier ñom ñëpp di and ak ñom ci mbégte ak passion bi. Mhm. passion bi ñu am ci xam-xam ñom xana tay war nañ kontaan. Euh, je crois bien. Mhm. <laughs> passion bi ñu am ci histoire mhm. passion bi am ci xam-xam mhm. passion bi am ci existence mhm. sur l'existence existence même c' est à dire yow da nga judd barki demo yaay l'an 2000 diggante diggante Dakar ak banlieue di xey di ndek di lek ci rek ceeb di kayen kaayang gi dem ak ñëw est ce que jotul nga tok nga jangataat suuf bi ngay dox depuis kañ la fi nek lan moko fi def ñan ñoo fi nekkoon bo de nit bo de nit nga jangat lan moo tax suuf bi depuis combien de milliards d'années mhm. lan moo créé créé mhm. planète di ci dund mhm. descendant après descendant génération après génération et même et même boo demee ci banlieue bi nga gis yi nekkoon ci kaw tali bi léegi tali bi war nga mën a jàngat lan moo tax lan moo tax lu phénomène bu nekk rek ak lu xew